ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak daara du la rëcc ci réew mi. suuluwe ma dëkk ak moom dëkk gu rafet xaas ki gaañu nag gaañu na ba pare heure bu ma julee maa ngi koy ñaanal muy Kiné Gueye yàlla yërëm ko xare ko àjjana yu gën ci àjjana yi waaye xaas ndok fu ne lay ñëwee te dañ naan cat bu reyut semmal lii lu mënu woon ñàkk ju dundam la waaye xaas keroog bañ koy génne sama kër may wax inspecteur ma ko inspecteur yéen a ngi yóbbu koo xamante ni kii def lii du xaas mi ñu xam laajte leen kuy wax te yàlla tax Touba Pikine bopp ba bopp laajte leen kan mooy xaas xaas tuxut naanut wax lu bon fu ñuy werantee sax ñun ñuy jigéen dëkk sax mu ne leen àddina du nii àddina du nii sama doom lu mu lu muy def ci lu ma neexut damay woo xaas ba mu ñëw sama néeg ma ne ko xaas yeddal ma kii ndax yow royuwaay nga xaas royuwaay la kuy wax te yàlla tax koñ bi fii ku ne danaan munoo munoo xool ci xaas wii sën a bëgg na boppam fonk na ay waajuram xaas lekkut bàyyi kenn xaas dina jubale ay nit lu kenn yëgut xaas lum la jox ma sàmba yëgut ma demba yëgut am na sutura ànd naag dal donc nag waajur ju ne rek war ngaa séddu ndog waajur ju ne lii nattoom la destin wam la yaayam doxewut bon yaayam kenn xamalu ko mi ngi njaay njaayam jabaram nag liñ koy waxal lépp ku dee ak sa bàmmeel yàlla xam na ñun xam nañ ñun ñu dëkk xaas ñu ñuy fanaanoo xaas xaas bu wàccee kër gi lay jubal si buy ñëwaat seen kër ñun lay eh, kii xaas buy xëy xaas deful lu bon daal man daal xaas xamewuñ ko daara dara lu bon kuy dee ku ne ak sa bàmmeel ndax ki négee ñun ñëpp a koy fekk ji ku waxta yàlla tax xale bi di nga xam ne lii ko def loo nii sax du xaas mi ñu xam xaas ku du tox kuddu naan àndandoo wut kenn ku bon amut. kenn ñu ngi naan soxna si moo ko pressing ci bëgg. ku dee ku ne ak sa bàmmeel mi ko doylu la doylu na am na sutura ñun noo dëkk ak moom am na sutura dal na tey na te lu mu am doy na ko nag mi mu am doy na ko day liggéey mi day liggéey di liggéey di def ci boppam sonalul xaas lu ko tey sono lu ko suba mimi ba lii amee sax dafa waxoon du kii mën na ko yow boo tëddee ba guddi ñu naa la lii sax xaasa ko def di nga ko gëm mën na ko demal jugal nga dem nga def sa tatouage man du ma bàyyi kenn du ma ko fenaan mën ko jugal nga dem mën na ko lii yow mën na ko yow da ngaa mës a gis sa jëkkër ci dara ci lu ñàkk fay na mën a ma déedéet mën na ko xamee woo ko ko mën na ko man ba ma gisee xaas ba tey xamee mu ko dara lu bon. kon ngénte lii mujj na am. du ñoo tudd léegi nag ba ñu commencé gis ci net beeg yooyu nu arrêté waaye du ñoo tudd ndaxte loo foogut lu la bett mën la nag lii dafa lii ñun ñëpp la jam ñun ñëpp la jam xas daal lu ñuy wër ci nit diine ak lislaam kuy wax te yàlla tax ak jaboot di nga waxal xas lu baax lu rek te di ko naqarlu ndax xale bi de du siggi sax xool nit du siggi sax xool nit ñun ñu judduloo ak moom nekk ak moom fii fanweeri at ci ren ma nekk ak moom suma gis xaas ñu ne xeex na wala sànni na nit xeer wala okk na nit bam naaj wax dëgg yàlla su wàcce toog na ci buntu kër yaayam ji su fa jógee ma nga néegam su fa jógee xëy na lépp loo xam daal ndogalug yàlla moo egsi ci kawam rek moo egg si ci kawam te jombul kenn wax dëgg yàlla ndax yal na nga nangu nattu ba rek te yàlla dimbale la ba nga génn ca nattu ba waaye man da xamaluma ko dara dara dara ti lu ñaaw musuma gisit mu def ñaaw téef xale bu ndaw bu gën a tuuti rek musu koo jooyloo ci koñ bi wax dëgg yàlla ku mu romb jox na la cër kuy ndeyam jox na ko ko kuy maamam jox na ko ko man da loolu laa xam ci moom wax dëgg yàlla ku dee yaag sa traayu bàmmeel loolu laa li li li ñuy wax ni bëggoon ngénte moo tax mu def ko est-ce que da ngay ànd ci loolu wala non non man nag loolu moom dese ndax nekkuma ci néegam nekkuma ci xolam wax dëgg yàlla waxtaanut ak man it ci yooyu waaw loolu moom lu ma la ci waxit wax naa loo xam ne xaw ma ko loolu moom dese na maa leer mbaax gi daal ak yaru gi man xam naa ko ci moom ak yiwe gi wax dëgg nattu la nattu la rek mi ñu ngi koy métti lu nag. bi loolu amee ba léegi est que yaayam yéen a ngi koy gis ak moral bi nga xamante ni moom la nekk. ah bi ñu amee ba léegi nag man yaayam gisaguma ko wax dëgg yàlla waaye moom it am na lu metti torop am na lu ko metti torop ndax xam nga ni lii neexul kenn wax dëgg yàlla am na lu ko metti duudu muy muy euh, xaasim di jabar ji xam naa leen xamal boo xam ne même des fois damay dégg comme quoi que ni jabar ji moo ko teg pression ba mu def. Sénégalais yu bari ñi nga wax loolu. loolu noonu gëw ma ko à 100 pour cent quoi parce que xam naa mimi dépp mu nekk xale wax naa la mimi ba ma koy xam sax amaana xaasim xamagu ko ndax xaasim. Euh, Euh, moom ba ko waa ko ñu commencé ràññee yàggul comprendre nga man mii mi xamee ma ko loolu mii mi gis ma si moom tamit euh, euh, mu nekk mat ku matérialiste quoi xam nga mii mi fu ma romb dañuy taxaw ba même veille samedi bi. muy soxna si nga xamante ne mooy soxna Xaasim. moom mooy soxna si mais man masuma gis ma loolu si moom quoi moo tax bu ñuy wax damay wax mais. des fois dañ may contredire naan ma nit ki mën nga koo xam mais bul xam o fond lu muy dund yooyu noonu mun ko noonu mi mi xam naa ko sama kanam la juddoo moom tamit yoroo sama kanam la juddoo màggee sama kanam loolu daal dafa may jaaxal ko loolu daf may jaaxal trop man daal pour conclure mooy jàpp naa ne xaasin ba muy def lii toll na dimension boo xam ni xam nga disjoncté na daal nga te xale la il est en 94 moo sama rakk d'ailleurs ñoo ñoo te xale bu nekk xam nga bu amul ku lay canaliser di lay kii rek des fois di nga toll di nga di nga toll foo xam ni non mën nga def lii man loolu laa jugé quoi dama jàpp ni dafa toll foo xam ni mënut amatul maîtrise amatul maîtrise sax xale tam gisuma mag bu koy jege pour conseiller ko xalaatal ko fekk ni ngi boo kiiwul nga def lii man loolu laa jàpp mais daal du lii nii du personne xaasim man pour man beneen xaasim la woon jour boobu noonu pour man beneen xaasim la woon mais franchement mosul mel noonu toxul naanul màndiwul il est sérieux même am na benn grand moom tamit grand Massar yàlla na ko suñu borom yërëm te jégal te xar àjjana moom da doon wax xaasim da koo neex parce que booy il est posé te aussi foo ko fekk il est correct xam nga man daal loolu jaaxal na ma taw te aussi tamit chacun a son destin ah moo tax les gens qui jugent nañ def ndànk parce que ku nekk am nga sa destin ku nekk am nga sa destin moo tax aussi tamit nañ ci bañ a di négatif quoi il faut penser positivement xam nga. nga wax ni xam nga suñu tey teygul ko lii nii métti na trop ku mu rey noonu loolu man le jour même le vendredi sam benn frère dafa jóge woon Nord Foire ñëw fi muy ñibbi ma gunge ko sam frère boobu saa yu ñëwee sam frère boobu saa yu ñëw maa koy gunge ba Ridis jumaa ji fa lay taxaw jël taxi mais le jour même dañoo taxaw foofu mën a sam frère am benn boy bu ñëw approché ñu ne ñu grand bu fekkee taxi ngeen xaar bu yow ngeen demee ko côté bee ndax fii nii ça ne dafa am te aussi les premières information sont sont plus souvent fausses koi information yi ngeen njëkk a jot si benn affaire lu si bëri du dëgg ndax booy bi ne fee daa am kuñ fa daa am benn jigéen bu ëmb de huit mois dañ ko rey moo tax it bu tax mu am benn ampleur bi mooy yaa deux mots ñoo ko yóbbu fu mu yeggul mooy baatu ëmb ak baatu rey comprendre nga baatu ëmb. kon ëmb bi ëmb bi ëmb bi amul. mooy bi nii. moo may euh, crime bi toole bi nii xam nga moo may crime toole bi nii après ba mu gisee sama frère bi noonu ba mu jël taxi dem man xaar ma doxantu xool mais ba ma demee taxaw sama première réaction kon ko nee nañ femme bu ëmb ñu rey ko rendi xam nga sama première kii moo ne mooy dama wax ni sama xel lii de ko ko def yàlla nañ ko gaaw a jàpp mais malheureusement tey koo xam ni ñoo dend kër lay doon moo tax it on sait jamais chacun a son moo tax nit ñi.